te borom bi subhanahu wa taala julli ca ndawam la Moustapha sallallahu alayhi wa sallam noo ngi dellu di yeesal sunu jaayante ci Mawlana Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu wa ardaahu noo ngi ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi fi nekkal Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu mu yàgg fi lool te wér ba lim yéene liggéeyal sëriñ Touba lépp mu def ko ak sagoom noo ngi nuyu mboolem ñi ne ci jataay bi yépp di ci jiital sëriñ alxaaji Guèye mi nga xam ne mooy wattu buntu kër Alhaji Mor Guèye ak mbooleem ay rakkam buñ ci tuddee sëñ Seexuna ak Serigne Modou Guèye ak xaayra mi nga xam ne moo ma boole ci kër gi. ba taxoon ma ma xaritoo lool ak alxaaji moor jëli ci moom lu bëree bëree bari ci nettali sëriñ Fallou di nuyu nag sëñ Cheikh Oumy mii nga xam ne damay wax ne moom yitte dafa am solo lool ci yoonu murit te moom mu doon ndaw lu am yitte Baye Omar Kane sa da baax rek teraanga ku ko amul mënoo koo joxe tabe ba tabe jeex tabe ci sa daraja ku gën te yow da ngaa tabe ci sa daraja ndax xam nga ne mbooleen ñi yor micro ci suñ génération bii yaay suñu idole yaay suñu référence yaay ki nga xam ne yaay suñu capot li italien naan capot yaay capot ñiy wax ci micro loolu yàlla dogal na ko ba tey nag njabootuk alxaaji muur Gueye defaat lu am solo dund addi sub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam inna abaril birr an yasila rajula ahla wudd abi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bokk na ci ak mbaax mooy nga jokk sa ñooñ baay te yow ku nekk xam na ne waaye alxaaji moor géey nga woon gis nga alxaaji moor bu fekkonte da ngeen koy dàkk di ko ñaanal maa ngi leen di waatal fii ci Serigne Touba ne ñaan gi yàlla nangu na ko ki doon jàng léegi du sotub Serigne Fallilou da ngaa ne moom fu ne lay jël micro di fa jàng ku nanguwul ñu jox ko addiya li muy wax rek ko ñor waaye nag noonu la ko maamam daan defee di takk laxasaay ci ndiggam moom Cheikh Ahmadou bàmba di ko yëkkati. am na benn bis mu woo ma sàmba ne ko li nga doon jàng léegi foo ko déggee mu ne ko ku baax de la toog ci keesam rek dégg mu di ko wax ma roye ko ci moom mu ne ko sàllaaw noonu laa ko dégg ci malaaka yi de moo tax noonu laa ko doon defee. mas nañuy jàng jës bu bii mu doon jàng léegi di ko jàng ba yàgg mu ne tël ne tollu fii. sëñ Mbacke Diouf ne ko man de Mbacke maa fi toll mu ne ko lu ngeen di def mu ne ko jàng xasida yi rek booba booba tàggoon ak sagoom daal ne ko Mbacke Diouf mu ne Mbacke mu ne ko xam nga yéen ñi jàng xasida yi ak man mi ko bind ak ñi koy déglu nu mu demee mu ne ko déedéet mbakki ne mu jël baaraamam bu tedd ba ne ko rëkk ca dënn ba ne ki ko doon bind ngi nii mooy njanaaw li yéen ñi koy jàng yéen ay laaf yi ñi koy déglu ñooy donq yi dem leen bu ëllëgee fu ma jëm jëmee leen ba sëñ Mbàkke Juuf ne warañ bëgg a dem mu woo ko ne ko moytu leen nag di ko def di ci rax dara képp ku bàyyiwut fu ñu jàngi sama xasida yii nga di ci bër xal yi wax daañ la bër xal sawar ak noo mën a mel ak ku la mën a jur nan gën a fonkaat xasida yi sëñ Tuubaa yi ijhal xasidati ka asiya fi zihab waliyahab tasqira jumlata zihab moo tax mu mat a moytu xasida yi dañ ciy defaroo waaye nag dañ ci dañ dañ ciy aaroo tim waaye itam day yàq it ci koo xam ne daa jug te joxu ko war ma jim ko war a jox ndax Serigne Touba nee na sama karaama mooy sama mbindum loxo waaye buñ dee buñ dee fàttaliku Alhaaji Mor Gueye di ko ñaanal sëtub Serigne Fallilou di doomi Cheikh Abdoul Fattah toog fii yëkkati jës bu wallaay bu ngeen doon dàkk sëñ fallu jam ngeen ko Alhaaji Mor xaw fu mën a nekk waaye tey xolam sedd na Omar Kan balay sa alquran dafa wax ne wa kullan naqsu alayka wa kullan naqsu alayka min anba'i rusuli maa nu sabitu bihi fuaadaka wa jaaka fi haasihi alxaq wa mawhisatun wa sikra lil muminin yonent bi daf ko ne yàlla daf ko ne dinaa la nettali histoire gaa yu baax yi la fi jiitu woon su ma la nettali histoire bu Moussa ak la mu daj nettali la histoire bu Noox nettali la histoire bu gaa yu baax yi di nga ci dajeeg dëgg di nga ci defaraat sa pas-pas defar ci sa xol tegewaat ci yoon ba mën a àgg waaye Baye Mor Tine buñ ko waxtaan yi dëgg dëgg waxtaan danañu xam suñu bopp ñun en tant que ndaw ñi nga xam ne fréquenté nañ damay faral nit dina fàttaliku ree waaye nit dina fàttaliku jooy nit dina fàttaliku kontaan lool waaye nit dina fàttaliku rus yéen nag fàttaliku wu leen rus fàttaliku wu leen mer ndax seen waajur wa la sëñ Fallou yoroon di ko jaaye dafa jënd tafu wut ngërëm alxaaji Moor ku xamoon boppam la xam nga sëñ Maamarum Cheikh Mouhamadul Mourtada damay dégg mu ne nit du gëm boppam waaye nit day xam boppam lii sëñ Ousmane Bousso waxoon sëriñ Fallou ne ko dëkk bi mën na ko yor ndax ku jubla ku doylu la te it ku maandu la ñetti yooyu mbokk yi nañ ko jàng ak a jafe jub maanaam juba jafe alxuraan ba mu jeex boo ko defoon ñaari rakka sëlmal te boole woo ci faatiha boo ci amul dóori yàlla doo ci am payug yàlla xam nga lu ko waral ihdina siraatal mustaqim wa anna haza sirati mustaqiman fattabihu wala tatabihu subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasikum bi laalakum tattaqun hmm. jub yonent bi ne dama bee jaaw ndax baat boobu fastaqim kama umirta hmm. dama bee jaaw ndax saaru hóot hmm. ndax ne da nga naan kéem mu taxaw doo ëpp doo yées loo moomul ba ko fa loo xamul doo ko wax lu sa yoon niw doo ci dugg boo foroon 20 millions di laaj borom Hmm? ah léeg nga dégg ci rajo bi koo xam ne danaan damaa for xaalis def naa ko ca màggalu gànni mesere ga for fukki junni ci baas bi di ko yéenalu maa ngi dégg ci sama ginnaaw ah kooku de dootu am xaalis for fukki junni tàngoor wii ay booye ngi ne ci sama ginnaaw maa ngi dégg naan kooku de ah fukki junni tàngoor wi doo ko def a sa poste dem sa yoon waaye ki for fukki junni di wër boroom ak ki ko naan dagga torox ñoom ñaar am na ku ci doonut jullit ci même waxtu woowu moo tax jub jafe jub alaaj Mor dafa jub alif laam miim saalikal kitaab laa ba fii hudan lil muttaqi baatu hudan baat bu gàtt la waaye lu jafe la xablil istiqaama xinil malaam xablil karaama bi silliwaay jub googu mu def nag sëñ Fallou ko confirmé ndax sëñ Ousmane Bousso moo ko jox mbooleem ration dëkk bi ak li sëñ Fallou yi dépensé te saa bu ñu réglé day day dem calculer bopp moom sëñ Ousmane ba xam ne moom nee na ci dëkk mu ñëw ne alaaji Mor nañu réglé bu ñu ko réglé 15 du ci dolliku 15 du ci wàññiku li gën a garaaw nag ci xam sa bopp mooy kër sëñ Fallou ni mu neexee yàpp wata boor waag lépp nga fa buñ ko ne kaay añ mu ne bàyyi leen ma dem ci sama laax ba moo tax léeg-léeg nga dégg fii kuy wax naan dama gëm sama bopp ak dama nangam te fekk day dóor rek léeg nga gis ku wan adduna ginnaaw ne daa bàyyi adduna fekk wan googu mu wan adduna ginnaaw du koy wutee adduna loolu daa mat a xam kuy dëddu dëddu lu di wane ne daa dëddu di jooye yori xasida leen lu ne mu dugg fekk loolu adduna la koy wutee moo tax mbir yi naqaree xam ji moor dafa dëggu damaa koo fekk fii ci bunt kër gi mu toog mu ne ma jaayante naag Serigne Fallilou ñi nga xam ne ñoo ko doon tër bi yow te keroog bi jumaa ji ak jéem wax nu ne yéen ay VIP yi man maa ko firee noonu ndax daa leen wax ne bu ëllëgee amul fu seen fenn fu seen Tuubaa di toog te yéen ñi doon liggéey jumaa ji ko wër ndax moo doon bëggam wax fir li man banaw binaaha rafiq wax fir li man amarahum jeex na kon ñooñu dañoo dee dañoo dem àjjana te deewaguñu dañoo dem àjjana sëñ Fallou daan leen wax ne yéen ay alali Sëriñ Tuubaa aw ma xaalis bu may génn di leen jox de waaye ndox bu ëllëgee fu sëñ Tuubaa toog ngeen wër ko kon ñooñu ñooy VIP VIP mooy ña doon liggéeyal jumaa ji sëñ Tuubaa Alaaji Moor nag dafa doonoon koo xam ne nee na benn bis nettali na ma fii ci mën a muñuk Sëriñ ak na a muñam nee na daa am ku ñëw ne ko dama bëgg may ma pepp mu woo Baye Thierno Fall ne ko Thierno Fall mu ne ko Mbacke mu ne ko man de nit ñi ñu ngi may jógee fu ne di ma laaj te man liñ may laaj yoruma ko Thierno amoo ci ndimbala mu ne ko ah kay am naa ci ndimbal de dañ koy yëgoo rek mu ne ko noonu ko yëgoo noonu mu ne ko ku ñëw fi man danaa ne la joxuma la sëñ Fallou li fi ne daa xamul te ñun dañ koy dundee doo ngay sax amuñ lu leen mu ne ko ah loolu dana diis di Thierno mu ne ko ah, moom daal buñ ko yëgoo mu ne ko waa noo mën a dimbalee daal man ba sama der set waaw waaw wax nga dëgg sax taali bi day yellul kilifaam aw gàngal waay demal ku ñëwati rek bàyyi cerno sëñ fàllu boole na lu pepp mu ne boo demee neel sëñ fàllu cerno fàll lànk na boo demee neel sëñ fàllu cerno fàll lànk na da nga defee ne lii fi nekk taalibe yeeg nangam sax doyut mu naan diw nañ ko jox cinquante pepp wala nangam nee ko lànk na bu ko defee kooku naan buur de ayut dagg yaa aay sëñ fàllu mucc mu ne ko taalibe bu ne day yennul sëriñ ñëw aw aw gàngal benn bis nag ñuy ndékki ci ndékkikaay bi alaaji Mor Gueye moo may nettali de nee na bi ñuy nett nekki ci ndékkikaay bi Baye Thierno Fall jug taxaw tiim ko daal di jooy mu ne ko Thierno lu xewati mu ne ko Mbàkke damaa xam ne lépp yaa ci man ñëpp raw ci ñëpp waaye yett kenn dala ci dem mu ne ko yéen yett mu ne ko nit di la nax nga xam ci nax yi lu boroom nax yi xamul ba noppi nga tàbbi ci ñi koy def bëreetut de nit di la nax ba noppi nga xam ne da lay nax nga nga jox ko ngir jëmmi sëñ Tuubaa xanaa xamoo ne moo du gisee sama mag bu la nit dee nax te yow mi muy nax ki tax mu di la nax yow mu jaral la mu yàlla ak sëñ Tuubaa bu la dee nax it ñoom xamuñu naxe xamuloo yàlla ak sëñ Tuubaa duñ naxe fi ne bu ñu àndee ci Bàmba ji yow nga jàpp ne danga may nax man man ma jàpp ne sëñ Tuubaa laa jox nan dem ba ba ba ca ndaw ja nga xool kuy perte rek buñ demee ba ca ndaw ja da nga xam ne yow mi ma doon jox te nga jublu di ma nax man mi ma doon jox te sëñ Tuubaa jaral ma man la man sëñ Tuubaa dana ma fay ndax moom moom nee na ñemiwut bor dafa am fay kon alaaji moor nee na bàyyi na Fall def ne sëñ Fallu nit da lay nax nga xam nax yi ba noppi tàbbi ci beneen bi mooy nit day ayib lool sikku lool nga xam ci ayib ji lu borom ayib ji xamul ba noppi nga suturaal ko loolu lu jafe la xoolal politique bi léegi mm. politique kay tojoo fenn nag amoo mbooloo kenn topp la doyoon na waaye sa baay juru la te ñu ñuy tudd yi tudd sëñ Tuubaa ak a ñaaw ñu ñuy tudd tudd sëñ Tuubaa laa yor sant sëñ Tuubaa kenn ki amul lenn lu muy wax moroom ju lu sa baay juru la te mu leer ko ne moom mi wax day fen ah te daray warul ko lu ci poñitum adduna mi te nag wax ju ñaaw fa mu jógee fa mu jógee fa la cosaanoo de fa mu jëm dëkku fa te wolof dafa wax ne dëkk ju yàgg boo ko gis lee mu xam leen la koo xas tontuwul dalaa gën a gore gën laa baax te du la toog ci sa jikko ju ñaaw jooju waaye koo xas man naa faju ñaari ki koy wax nag boo ko xoolee ba ci biir koo xam ne kum xulool rek kum xulool jéggi barage yi yonent bee ko wax de nee na foo ko fekk xamal ne amul benn tomb ci yàlla ki la xamul di la waxal bu la xamalee foo jëm sëñ Fallou nag dafa la daan xamal ba noppi nëbbal la ko am na koo xam ne daa ñëw nuyu ko sujjóot ko ànd ak moom ci piliaan sëñ Fallou jóg ñu ne ko waa ci lu def nii mu ne waaw waaw daan naan um waaja ne ñu yëpp koy ginaar ak yooyu yëpp bam na ne ko ay bàyyi li ngay def ko banaa ko man nga mbëkk ba ma daanu xanaa jar na nga bako <laughs> ah am na koo xam ne xaalis la jël teg ca lal ba ne ko demal xoolal ma ci néeg ba nangam kooku jël ku mu ne waaw loxo bi daa tàng jër mm-hmm. te boo ko bàyyi mu sàcc ca mbedd mi ñu dóoral la ko indil la ko nga jox ko fii boo ko joxoon du jël boo ko joxoon du jël waaye boo tegee man na ko fab te bu génnee fab yi fi jàmbur ñu dumal la ko moo tax jox ko mu fab waaye itam jàmm rek moom fab rek la bëgg. kooku bu boobu dimension. dimension boobu la nit ñi àggatul léegi. waaye xam nga xam nga lu mu ca teg. daf ko wax ne ko ñetteel bi dina ma dikkal léegi. Hmm? nit di la nax ak nit ayib lool. waa nit di la tooñ nga mën a fayu. nit di la tooñ nga mën a fayu ba noppi jekku fayu win wi fekk booba la ko waraloon daa am kilifa gu baax bu ko bindub leetar wax ca lu garaaw a garaaw a garaaw sëñ bi jàng leetar bi woolu ko mu ñëw moom ñëw daal di toog sëñ bi ne ko leetar bi yaa ko bind mu ne ko waaw mu ne ko yow li ci bëggoon lépp yàlla defal na la ko ci bi nga koy bënd bi nga koy bind bëggoon nga ma jot ci bi ma ko jotee bëggoon nga ma jàng ko su ma ko jàngee bëgg nga mu métti ma yett yëpp am nga ko jot naa ci jàng naa ko métti na ma kon xanaa sa xol war naa sedd waa ji ne cell mu ne ko waaye maa moom sama jéggal te jéggal naa la ndax que a yar yafal la ba nga fuuy di ma wax lii man daf maa yaroon ba ku mel ni ñëw bu ñëwee ma mel nii ma mel alaaji moor nag kookoo ko yar jàngal ko ak doylu moo ma wax fii ci bunt kër gi ne ma ñi doon tërbiyee sëñ Fallou ku ciy dund saa ba ma fekkee ci sama buntu kër gi ma jox la dépense ndax damaa xam ne bu fekkoon sëñ Fallou yi dund mooy yor seen kër yi te ñoom ñëpp néew nañ doole te mënatuñoo liggéey ku ma fi fekk rek ku ma fi fekk ci ñu doon liggéeyal sañ Fallou ma jox la dépense su ma ko amul tiim danaa ko lebi am na benn bis ba may nettali loola dañoo toog tuuti Baye Yankoba Faye yàlla na ko yàlla yërëm yàlla leen yàlla yërëm ñoom ñëpp Baye Yankoba daal di agsi mu ne ma leetarum ndox dégg ne diw dañ koo joxoon sëñ Fallou ak leetar ba ànd Yankoba mi lañ joxoon leetar ba moo ma ko nettali fii yanqoobaa ngi nii sañ yanqooba nettalil ma ko boppam loolu mooy leer laysal xabaru kal ma maanaam benn kaay ma wan la moo gën fukki kaay ma wax la ki fekki woon mbir yi bu lay nettali du ci yokk dara du ci wàññi dara te bi ko suñ fàllu joxee dëkk bi daf ko ne dag may garanteel yii du ma ci yàqu du ma ci yàqule du ma ci yàqu duma ci yàqe duma ma ci yàqule waaye yor na ko ba bàyyi kenn jëppiwu ko alxaaji Mor doom ngay Tuubaa gii la doomam di wër kër yëpp kër Cheikh Abdou Lahad kër Cheikh Mouhamadul Moustapha ba ci Cheikh Mouhamadul Mourtada bu fa duggee ñu ne ko kuy sa baay mu ne Alhaaji Mor gay ñu jox ko wàcc waay ngir jikko fa innamal umamu axlaaqu ma baqiyat fa in humo zahabat axlaaquhum zahabu askan yëpp jikkoo leen fi bàyyi saa bu jikkee demee rek dara desutu fa jikko mooy diine Alhaaji Mor dafa gënoon a rafet ñëpp jikko waaye nag daa am leneen lu gën a mat a roy muy ñeme njaboot nag laa ilaha illallah maanaam kooku xayira géey mii bu mos a ñib moom ko war a ñaanal alaji mor la ko ndax ma daa ma sawaa ji juruma ko man yaw laa jur ndax dafa ragal dama yow yow laa jur lamp yow dama bëgg ku ñeme may téye nii bipp ma bëgg ku ñeme dafa amoon fit ñax njaxlaf xam boppam mu ne ma xayira mii day na ñaan ma yàgg fi de daa koo bëgg nag ndax daa ko tuddee ko ma bëgg muy sëñ Modou Bousso Dieng daal may nettali sëñ Modou Bousso Dieng bis ba muy njëkk a waaj màggalu Kazu Rajab nekk ca sayir am ku fëgg bunt bi ba nee bi muy génnaat fetal sax la génne ndekete sëñ Fallou moo ma ko nettali fii neen daa fëgg bunt bi bu génnee du gis kenn nee na mu demaat ba toog mu fëggaat bunt bi mu génne du gis kenn ñetteel bi sëñ Modou fa mu daan dem da yor fetal mu génne fetal gi waaye mu génne ci bunt bi ko fekk na ne ko sama bis boobee waaye laal doon wax mm. alaaj Mor ma ko nettali fii daal ne daan ne ma daan ne ma lim daan dogu lépp daan ne ma lim daan dogu lépp lim daan dogu lépp làmp xam nga nu mu demee mu naa mu ne ma daf maa wane ma allah ji ma ne ko mbàkke mu ne ma xanaa ma waxee ci mbooloo ba dem da da nga tiit ne ko yii ne waaye xam nga fenn laa ko tegu te saa boo ma gisee may wax ba tudd sëñ fal maa ngi ko teg ci sama kanam di ko xool ne na jëmmam laay indi teg ko ci sama kanam ba mu leer ma ne jàkkaarloo na ma moom ma doog a wax li may wax ma wax moom de ah lu ma wax kon ñun ñii fi desandi yonent bi dafa ne isa mat ibnu aadama in qata amalo ila min salaasi sadaqatun jaariya nga tabaxum teen gas ko wala nga tabax jàkka wala nga jëmbat fi garab guy meññ ñu te lekk wala ñu cay toog way laa nga jàngale fi xam-xam bu am njariñ ñu di ko jàngale wala nga bàyyi fi ay doom yu baax ñu di la ñaanal ñii di ay doomam fu ma demee ajjuma jumaa maa ngi ñoom ay bokk sàppe te man na ma julli ji ci jumaa ja nag waaye fu ma demee ajjuma jumaa dinaa leen fekk ñoom ñu su ma leen a gis ñu jël genn ajjuma seexu mi mii ci sama ginnaaw ak ñu bari ak alaaji Modou Guèye meeg ñoom ñu kon yéen nga ca yoon li ngeen di royee seen baay nag mooy na ngeen lewet lool na ngeen baax lool na ngeen tabe lool waaye nag kuy tay tay lu ba jël seen loxo teg ko ci seen bëgg na lii du ëkk bu leen ko tontu ne ko lii du ëkk de yóbbul loxoom bi ba ci ëkk nga tay ko ca ne ko ëkk gi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu